waaw ku bëgg xeex ci àdduna maa la dàq xeex ku bëgg xeex ci àdduna maa la dàq xeex ku bëgg ñàkk personnalité ba si man xam ngeen ni maa gën a ñàkk ñëpp personnalité man damay simmi sama yére personnalité simmi ko teg na leen sol sama yére boo xam ne ñëpp a may xeeb su ma bëggaatee nit ñi respecté ma ma solaat sama yére boo xam ne ñëpp a may respecté parce que dèjà fu nit ku baax di dem dama fay dem dèjà man ku nit ku baax di dem man maam Ndiaye Savon dama fay dëgg sama tànk tàppate leen live bi muy xaaral ma xool ndax live baa ngi dem parce que samay wax duma ko duma ko yàqamti te wax ji duma ko jël rek daal di koy teg benn place rek di di di di wax waxu manqué wala nit ñi di la xeeb ëllëg may leen ma tuuti. man dèjà sax bu ngeen ma xoolee dèjà yéen bu ngeen ma xoolee xam ni man manqué wu ma ñàkkuma fayda topp ma ci ginnaaw kenn di dem ndax xale lu mu am yàlla teralee na ma ko man amul benn xale bu may topp ci ginnaaw amul benn xale bu may bëgg ànd amul benn xale boo xam ne damay jooy pour ànd a yow ndax nag man kàll macha allah ba yàlla di sédd damaa tibbal ba yàlla di mbeje damaa xët ba yàlla di teral gor yi dafa ma teral kon dèjà bu ma toogee ci réew mi di boole toog ci jàmm ak salaam nangootuma xulloo nangootuma xeex nangootuma histoire nangootuma def dara ngir yàlla war a sóori bàyyi leen ma may man xam ngeen ni man daw ma dara man maam Ndiaye Savon daw ma dara li ma wax barki démb ma dégg naa daali deux fois xutbaal nañ ma deux fois am naa jëkkër deux fois kon man amatuma lu may perte y a des deux filles y un garçon man pertatuma dara sama àttanu ku ma sa gat la ku ma takkul saggat la man awma lu may daw wala ma koy tiit wala ma koy ragal man Mame Ndiaye Savon man parce que pertetuma dara ci sama àdduna ba am jëkkër jotee am naa jëkkër ba tas jotee dama tas Sénégal dara mënu fee ëmpe nëbbatu naa nëbbatu ma ba mënuma koo mëbb ma jël ko partagé ko ak yéen kon dèjà xam ngeen ni kooku du ragal man sama fit dama koo ragal man amuma lu may ragal ci doomu aadama direct bi dematul. di leeral il faut nga génn il faut nga génn ñu naan commencé tina soo génnee wax ñu ne commencé tina dañ ko cukk commencé tina boo ko cukkee di ko am booy man kenn du ma wutal ndayu sens interdit ngeen jéggal ma nday ci kàddu yi man kenn du ma wutal sens interdit man kenn du ma ne kii ngay waxal wala kii ngay waxal wala kee ngay waxal man ku ma ndayu neex laay àndal man sama ceeb kenn da koo da koo xorom man sama dawlin kenn da koo dama koo jox ne ma nii nalal sa ceeb sama dépense kenn daf ma koo fayal ba nit di ma wax naan ma fii nga war a yam wala fii nga war a àndal yéen ngay ay naafeq yu bon yéenay ay duulkat yéenay ay saytaane commentaire yi ngeen di commentaire pour lan la ay maam Ndiaye dafa foo moo jaxase Nogaye Kara ak maman Virgère man digganteeg maman Virgère ak Nogaye karaa lu baax li ma ci wax na ko Nogaye Kara génn leeral maman Virgère génn leeral maman Virgère bu dee dama ko mës a woo ne ko maam Ndiaye savon mu ne ma ah ma ne ko maman dama bëgg nga bàyyi Nogaye wala li man lu baax laa ciy wax duma ci wax lu ñaaw duma ci jëf lu ñaaw su ma gisee tey maman Virgère damay sigg su ma gisee Nogaye Kara damay sigg ndax tey donc tey fii Sénégal fii lu fi waay di wax na leer ndax tey loo wax sa morom bu subaa bu jubóoweeg sa morom dem duul ko ko maman Virgile léegi nii bi may dugg fii la ma mujjee vocal ne ma maam Ndiaye envoyé ma ay ay ay lii nu mu tudd ay nu mu tudd sax li ma lekk dafa bari ay ay jàllaabi ne ma jëndal jàllaabi yi nga indiwaale ko xale yi dañ koo bëgg. maman Virgule damay déggante ak moom 24 heures sur 24 du toog bu ma ko woowulee moom day jëkkee saay woo ma wala man su ma woowulee su fekkee dañoo toog 24 heures déggante woo man dama koy woo téléphone mu woo ma téléphone parce que am na erreur bu amoon sama diggante ak moom te ñaanatuma yàlla mu am ci donc moom bu fekkee mi ngi ci voie normale man ak moom du ñu mës a réeroo man bu fekkee maa ngi ci sama voie normale bu dee li muy wax dëgg la ci moom man ak moom dootuñu mës a réeroo mais yéen a may sàqal ku may àndal yéen a may waxal ku may àndal yéen a may jëfal ku may àndal maam Ndiaye Savon lu tax mu ànd ak mbàcco la moo ci sama lëf lu si sama cottu maman Virgile xuloowu ma feeg samay xuloowu ma feeg nit ñuy dem place di fa jënd ay yére maman Virgile dama ko wutal sens interdit maman Virgile dama ko mës a wax ne ko maman ba mu ne ma ah ma ne ko bul ànd ak diw bul ànd ak diw loolu amul man laaj leen ma maman Virgile ndax dafa mës ànd ak nit man ma ne ko ki nga àndal kon yéen du yéene may wutal sens interdit naa maam Ndiaye Savon dafa dem ànd ak Mbacco di wax lii maman vulgaire wala qu'est-ce sa paas ngeen di bind commentaire yi ma ñëw léegi fekk la vrai xaw ma kii jàmm mbàdd bi dugal vidéo ñu ñu ñu capturé ko bind ci nee nañ man ma waruma ànd ak Mbacco Ndiaye ndax ma vulgaire dafa xuloo la moo ci sama lëf la moo ci sama gàtt Mbacco man mii la njëkk a xam. maman Virgile ci man la xamee mbaaco bi ñu àndee ñoom ñaar histoire sama yoon nekku si maman dama ko vocal carrément ni ko mbaaco mu ne ma ah ma ni ko mbaaco nitu kase la parce que tey bu ngeen jotee yéen ñaar day mel ni jote woole ndax démb bi ñu toogee ci direct bi da doon ambiance maman Virgile daan ma mbaaco njaay mi du nit ñu ambiance ka fooreta mais yéen chaque jour à chaque fois yéen a ngi seetlu nit ñi mën a tàqali ko bëggoo leen kenn ànd bëggoo leen kenn rëqaloo bëggoo leen kenn am jàmm man ku ma ne ma yaa jaxase diw ak diw ma tot sa cottu nday ngeen jéggal ma ci saaga bi bëgguma sax saaga bëgguma sol mbubb mu bon la mooy ndayu yow yaa jaxase diw ak diw Nogaye Kara ak Mama Birguel seen ànd sama gat da cee nekk lu ma apporteel Mama bu àndeek Mama Nogaye lan la ma apporteel Nogaye bu àndeek Mama Birguel lan la ma apporteel dèjà ñoom ñaan ku ma ci gis du ma sëgg maman virgule dama koy wax lu baax wool nogay téléphone ba bërki démb nogay ba mu génnee direct ne carrément ma woowu ma dama woo nogay maman téléphone ni ko maman mu ne ma ah ma ne ko wool nogay mamaa ne ma dooma ñaan lu ma la mayul sama diggante yow bëggatuma ci erreur soo ma ñaanee dara bu ma ko mënul sax dama la koy may ma woo nogay karaa ne ko lu tax ngay direct nit da ngay xam li la metti na patt ak moom sukk du la tee yóbbu say oom maman Virgule sa nit la bu leen nangu nit ñi reetaan leen eh looy wax na koy karaana leer ah su jubóowee ak maman Virgule bu koy nettali est-ce que dama koy fekke boo waxee ak maman na leer boo jubóog na koy karaa bis bu koy nettali dama koy fekke bi ma jotee woon ñoom ñaar ñëpp ñoo ànd koroboro lu ñu waxante dama ko xam lu ñu jëfante dama ko xam kon pour pourquoi man ngeen may wutal nday sens interdit naan maam Ndiaye da war a ànd ak ki nga man ku ma wutal ndayu sens interdit eh ma dugg ci sa caaya baay kenn du ma wutal ku may àndal du ma emprunté jeeg du ma kosóor samay maas du ma ñaan sama moroom xooñ man ku yaakaar ma doon sa emprunté eh nga tëjëx miir bu bari pont man ma nekk empranté jeeg man nit daf may wutal sens interdit kon man xanaa gaynde gi may woote nekkul ci man e man ban xale moo ma mën a may lu ma amul bi may tedd démb tey dafa ñëw bi may dégg daali benn xale dafa dégg daali bi may tukki xale dafa tukki kon pourquoi ñu bëgg ma wutal sens interdit yow connexion bi demaan na demaan na oh dem na lan ñu may wutal sens di yow man dama nekk xale man dama nekk xale ba nit di ma wutal sens interdit ngeen may ngeen may directal da doyatu leen ngeen may bindal ay message naan Mame Ndiaye Savon seytaane la moo joxe sa Nogaye Kara ak maman ak Virgile ak Nogaye Kara jour bi ñuy jotee dama ko fekke dama ko fekke man laay ban direct lañ jotee bi ñu paree maman Virgile Nogaye Kara sama place na ñëw bi mu ñëwee dama ko wax lu bon ci maman Virgile su ma ko waxee lu bon ci moment maman Virgile na génn maman Virga dama ko wax dara ci Nogoy Kara su ma ko waxee dara ci lu bon na génn lu dul lu ma ko ne àndal ak Nogoy Kara Nogoy danga koy tane parce que Nogoy xamul waxin Nogoy Kara lu tax nga direct lii ak lii ñoom ñaa ma ne seen diggante di ñaw comme puso ba ñaa ko ba man du ma def yëfu naa féq bëgguma nit ñi ne carrément ma man bëgguma ku ma souhaité fleur ne Maam Ndiaye dafa baax bëgguma loolu ay yëkkatil Nogoy Kara yóbbu ko ci maman Virga pour lan man bëgguma ko ma souhaité fleur ne ma da nga baax bëgguma loolu mais lan ngeen bëgg lan ngeen bëgg damay laaj lan ngeen bëgg yéen mais bu leen ma may jaam bu leen ma bu leen ma sonal fànku la yéen a may tee ànd ak diw maman Virgile ñaata nit laa xullool yi ñëw palaasam dama ko mës a woon ni ko maman diw dama xuloo moom lu tax mu ñëw sa palaas